alhamdulillahi rabbil alamin wal aaqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wa ashhadu an la ilaha illa allah waliyus salihin wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma ba'd ikhwata al-iman ahibati fillah assalamu alaykum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh ñoo ngi màggal Allah taala wa tabarak di ko gërëm di ko bàkk di ñaan borom bi jéggal na sunuy na sunuy rëcc rëcc noo ngi ñaan borom bi taala wa tabarak taxawaay yi ñu tàmbale yàlla na nekk sabab borom bi jéggal ñu ci sunuy bàkkaar tawfiq lépp lu nekk suñuy jafe-jafe moo ko a xam yàlla nañ ko yàlla yombal ku ci amoon tawat yàlla yàlla saafara jaamu yàlla bu bi ak li ko sabab ak liñ ciy wër yàlla nañu ko yàlla defal taala wa tabarak noo ngi julli day selman ci al rasul muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa di ko ñaanal jàmm moom ak i saxaabaam ak taabiina lahu bi ihsaanin ila yawmi ddin comme ni ngeen ko xamee saa bu ñu tàmbalee qiyaamul layli bu ñu amee ñeenti rakkaa yu njëkk yi dañ ci doon di amal ay waxtaan mu nekk madrasatu ramadan muy école weeru koor muy nekk ci ay bind yu fasanti ko lépp ngir suñu jotaay bañ a ñu mën cee jël lu ñuy jëriñ ci suñu ren ñu tànnoon benn mawdu boo xam ne ci la mu nekk ar rasul sallallahu alayhi wa sallam al qudwatul xasan muy tomb boo xam ni mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy royukaay di gën a rafet te xam ngeen ni loolu yàlla moo ñu ko wax ndax borom bi moo ñu wax ni walakum fi rasulillahi uswatun xasana borom bi moo ne am ngeen royukaay bu rafet ci ki yàlla yu ni góor ak jigéen kon bu ñu xoolee jawaanibul iqtidaa bin nabi sallallahu alayhi wa ay côté yi nga xam ni war nañ cee roy yonente jël ci ay bind jàng saxaaba yi nii lañ doon jàngee daawuñu yor téere toog di déglu waaye di appliqué ku jàngat ñun siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dajale makaarim al axlaaq mooy jikko yu rafet yi yi ci gën a te tedd day fekk mu nekk ci yonent kon ñun ñëpp suñu wareef mooy ñuy jéem loolu di roy kon bind bu njëkk bi ñu gis ni ar rasulu huwa qudwatun fil xuluqil xasan yonent bi sallallahu alayhi wa mooy royukaay bi ci jikko rafet kon war nañoo góorgóorlu ñun ñëpp ñu jéem a taataan jikko ju rafet jéem koo dund jéem koo appliqué ci suñu dig semeeru dund borom baa ngi wax yonent bi ci suuratul qalam ko wa innaka la ala xuluqin adim borom bi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jikko yu rafet yi yaa ci gën kon jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana xuluquhul Qur'an boo doon laaj jikkoom dañ lay jikkoom mooy alquran te loolu imam muslim solo na yonent da doon gërëm li yàlla gërëm waaye da doon mer ci lu yàlla musul nekk ku ñaaw jikko waaye nekkul ku ñaaw làmmiñ nekkul it ku rëy làmmiñ koo xam ni ci marché yi bërëb def ci yuubu fu mu waaye jikko yi gën a kawe bokk na ci wala yajzi bi sayyi'ati sayyi'a du fay mukk lu ñaaw lu ñu def kéeme ci moom soo ko defee lu ñaaw da koy muñ te baal la waaye bu fayu ndax xamul fayu kon fayu dafa bokk jikko yu suufe yi waaye yonent bi walakin yaafu wa yasfax da doon jéggale di jéllale jéggale mooy baal ki la jëllale mooy nit tooñ la nga yëg ni tooñ na la nga noppi ci di ko seetaan du jaar di wax di xuloo li booy yi naan dalay bàyyi xam na li nga def waaye mu ne tëkk na ci biir mel ni soo gàttee xel nag da foog ñu xamul ni da ngaa jaar ci kawam fekk moom jaar na sa kaw ndax moom xam na li xew mais dafa dafa mës a toog di ci wax ak yow jikko na ko mooy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Safiya bint Uyay ibn Axtab soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xoola ni mu tàggee yonent bi nee na bi ñuy wax Safiya nee na gisuma kenn ku gën a rafet jikko gisuma kenn ku gën a taaru jikko mbokk yi xadis boobu al imam Tabaraani génn na ko ci Awsat Anas ibnu Malik nee naa yonent bi sallallahu wa sallam fukki at fukki naa ko waaye musulmaa def dara mu ne ma lu tax nga def lii musulmaa ñàkk def dara mu ne pourquoi defoo lii xoolal ma boobu ci tubaab te pourtant lu tax nga def lii dara teewu ci ndax nit mën ne ko lu tax nga def lii nit mën a def nga ne ko lu tee nga na ñaar yooyu dund naa ak yonent bi fukki musuma wax lu tax nga def lii musuma wax lu tee nga def lii anas ibnu malik nee na bi moo gënoon a rafet jikko ne benn bis daf ma anas nekk xale toll ci ay douze ans yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko demal defal ma nangam anas nee ma xalaat ci sama xol ne ah kii daal jarul ma koy def waaye sama yéene mooy danaa ko def ne ma di dox ba romb samay moroom fo ma ànd ak di fo bàyyi la ma yonent bi yónni woon sallallahu alayhi wa sallam waaye ne bi ñuy fo ci marché bi man ak xale te delluma ci li ma yonent bi yónni nee na damay kaf ak ñoom ñi bëri rek yonent bi sallallahu alayhi fii tamit ginnaaw rek jàpp sama benn bu mu yëkkati mu ko nii rek mu jóg bi mu siggee xool yonent bi di reetaan sallallahu alayhi wa sallam di ree nee ma yaa Unays adhabta haythu ahabta ne ko Anas ndax li ma la dem nga ca ne qultu naam ana adhab ya rasulallah man ko waaw léegi maa ngi dem maa ngi dem zibatin bu doon yow nooy def mooy bind ku mu doonoon ci ñun lan mooy nekk première réaction envers doomam rakkam taalibeem kii na suufam lan lay dëgg def jamono lan lay njëkk a def nga yónni nit mu war a dem bàyyi yónni bi nekk ci leneen da nga may fontoo da nga may yàq dama sa borom pourquoi nga def lii teel te xool na yonente bi sallallahu alayhi wa moo tax kenn du moom wallahi kenn du moom ci mën nit ak mën xaalis ndeysaan anas nee ma daal di daw dem ci yonent xoolal leneen bi yonent bi leneen sallallahu wa sallam bu doon man moom bu mag see balaa dara damay appelé waaw wala lëkk la muccël la mucc bu metti dana xanaa da ngaa dof mais xool leen def ci ñun rek juum la xam nga ni xale xale la heure bu nekk réaction xale lay nekk ci moom ñu bëri li leen di boole xale mooy dañuy jàpp ni xale bi jikko mag la yore jox ko atteb mag soo ko joxee atteb mag su juumee foofu force su juumee da xam ni xale la nga koofee yam ñun dañuy dóor bay dóor borom deux ans surtout ku toll ci ñaari at teel lu tax nga def bi tuy dóor boo mu daal kon loolu dañuy jàngee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak modestie waaye ak suufee su ko defee bopp yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sunu royukaay ci lewet ak jéggale lewet ak jéggale yonent bi ku lewetoon la kon mbokk yi il faut ñu lewet lewet mooy guy saf di reetaan di jéggal xool leen yàlla subhaanahu wa taala li mu wax yonente bi suuratu Ali Imran aaya cent cinquante neuf ne ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan ghaliza alqalbi lanfaddu min hawlik ne ko wallahi yow yonente bi ci yërmande bi yàlla nga nooyee ci ñoom ba mel ni mat naa yonent bi ku nooyoon sallallahu alayhi wa sallam nee na boo nekkoon góor soxor góor bu bon kon du ñu la war di la déglu ndax nakiiru nit buggul ko soxor xale buggul ko soxor buggul ko bon li mu bëgg mooy ku lewe kon loolu mbokk yi lu nu war a jëlee ci Anas ibnu Malik wax na ci lewetu yonent bi ak bunt bi dafa nekk bunt boo xam ni wallahi dama ko doon xool ba ci yàgg mais may xalaat sama xeet quoi ma ne mais yonent bi daal dëgg-dëgg loo ko mënta qualifié mooy kenn anas nee na dama dox ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy dox ma ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy dox nee bi yonent bi dox ñuy dox ba ci yàgg benn waay waaxu taw féete yonent bi ginnaaw féete ko ginnaaw asan fan li ngeen defee kii de kii da ngay toppanteeg moom eh da ngay toppanteeg moom nga jaar fële mu jaar fii loolu mooy léegi ñii dañuy téye seen kii toog di la nee na ñuy dox benn waay daw féete yonent bi ginnaaw poñe ko mais bi mu poñee sallallahu alayhi wa sallam bu metti ba bëtu yonent bi fu la féete ginnaaw ñaari loxo ngeen ko ci poñe sallallahu alayhi wa gestu bi mu gestoo waa ji ne alal bi nekk ci sa loxo muumu ko séddale ko jaamu yàlla yi joxe ko séddale ko jaamu yàlla yi joxe ndeysaan am na riwaaya boo xam def ko ne alal bi du sa alalu ndey du sa alalu baay dafa am ci nit ñi ñu ñàkk teggin ñu ñàkk compréhension waaye ñu ñàkk yar yonent bi gestu xool ko ne ko diggante ñaari montagne yi dafa nekk lépp jël waaye dugg ci diggante ñaari montagne fekk ay gëléem ay nag ay fas ay xar yu bari waa ji dajale lépp ne bi mu ko dajalee rek ndeysaan kontaan gestu bi mu gestoo rek ndeysaan yonent bi daal di ree bi mu muuñee noppi ci dara wala ma loolu alal yoo xam yaa ko yore ci sa ndigal or nit di la ko teg kàddu yu ñaaw te nga muñ ko moo loolu léegi-léegi dafay faral di am léegi-léegi ngay jël mbir di séddale di ci dégg wallahi da ko ci dégg da ngay rus man mii rek muy séddale fii koor gi ceeb yi ñu dimbale ay nit ndeysaan samay maigre mooy ak samay ak ñenn ñi ci jàpp mais dégg naa ne loolu waaw naa ne ko jox de moom de ay milliards lañ ko jox mu denc benn benn benn waay ko wax borom la fekk ma dégg ko ma gerte ne ko su ma amoon milliard doo ko dawal sareet ma su ngay dawal waa ji xool ma ree damay hey oustaz damay kaf rek oustaz damay damay kaf rek nga xool nit ñi seeni réaction ci yi ngay jéem yow ci ñoom ak yi ngay jéem a roye ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko def boo jàngatee ne yonent bi day baal certes léeg-léeg nit wax na xam ne di ko tontu te fekk jaru ko da koy bàyyi ci biir su xamoon du wax li muy wax mbokk yi bi sallallahu alayhi wa sallam ku ñu war a roy ci kersa mbaa xam ngeen ni góor dafa war a am kersa kersa ci ngëm yàlla la bokk abi saidin alxudri nee na kaana annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ashadda xayaan min alxadra fi xidriha nee na yonent bi ëpp kersa jànq jànq bu toll ci douze ans treize ans ni muy amee kersa nee na yonent bi jànq kersa kon alxayaa laa yati illa bi xayr mbokk yi kersa du indi lu dul yiw mooy alxaya kersa ci ngëm yàlla la loolu moo tax nit dafa bokk ci insaniya li ñuy tuddee nite teraanga am na fu ko nit di séq ak yow ak lu mu doon war ngaa xool ci jëmmi teraanga boobu ndax li mu def su ko neexoon na koo bañ a def waaye su ko dafay rafet te jaadu nga jàpp te yàlla tax ñu bëri ci ñun nag dañuy fàtte teral saa yu defee lu gaaw ñu bëri ci ñun commencé ci man ñi ngeen bindu ñu bëri ci ñun dañuy fàtte teraanga boo xamante ni nit da la koo ji dañ koy fàtte te loolu bokkul ci li ñuy woowee personnalité mbokk yi ku ñu war a ñeewate bu bari ak yërmande moo tax borom bi ne ko ma illa rahmatan lil alamin nee na yonent bi yónni wuñ la lu dul nga nekk sabab kon yow sabab nga ci yërëm jaam yi kon mbokk yi nañu leen di ut di ko jéem a jikkoo envers suñuy soxna envers suñuy doom suñuy dëkkandoo suñuy morom kon loolu yërmande boobu dafa nekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu war koo jël ci waaye ñu war koo roy ci moom bokk na ci yërmandeem moom yorante bi Abu moom moo ñu nettali nee na yorante bi sallallahu alayhi wa sallam benn guddi dafa doon naafila digg guddi ne mu benn aaya di ko répété ci bu ko di sujjóot bu ko set jàng benn aaya di ko répété di ruku di set aaya boobu mooy ban mooy aaya bi ci suuratul Maa'ida aaya 18 borom bi naan ci làmmiñu Isa in tu'azzibhum fa innahum ibaaduka wa in taghfir lahum fa innaka anta al alimu hakim ne yow yàlla sa jaam ñi boo leen mbugalee waaye boo leen baalee ku tedd nga waaye ku xarañ nga aaya bi di ko jàng di ko jàng bëggoon set Abu Zar ne falamma asbaha qultu ya ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها يقول يرنت لي ما غير ngay jàng aaya bi di ko répété di ko di sujud lu dul set yonent bi wax ko loo xam ne ñun ñëpp war nañ cee ñaan yàlla bokk ci yonent bi ne ko inni sa'altu rabbi shafaa'ata li ummati fala a'taniha وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا حديث بالإمام أحمد moo ko solo ne yonent bi ne ko man day dama ñaan yàlla rammu sama xeet yàlla ne ma bay naa la nga rammu sa xeet allahu akbar yàlla ci yàlla ne dama ñaan yàlla rammu sama xeet yàlla ne ma may naa la nga rammu sama xeet yonent bi ne insha allah sama xeet danaa rammu ñu bari ba mu des pour lu bokkaat bàkkaar boo mën ci am mën nga am chance yonent bi rammu la ba mu des kii bokkaat kii bokkaale yonent bi mënu koo rammu capacité bi àgg foofu lan moo tax inna shirka la zulmun azim bokkaale tooñ bu mag la tooñ nag yonent bi amul capacité ñëw di nangu bokkaale kat moo tax yal nañu yàlla musal ci bokkaale yal bokkaale borom bi mooy utal ko denn utal koo xamante ni moroom la koy la nga doon yaakaar ci yàlla war ko ci yàlla nga gëm ko ci keneen loolu lay bokkaale kon mbokk yi képp ku bokkaale wu sandaa yaakaar na mu yonent bi yàlla ñu na mu yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi bokk na ci yonent bi dañ koo war a roy ci rafet kóllëre nit day am kóllëre nit day am lu tamit waaye nit day am fàttaliku lu baax la ci jullit borom bi nee na yonent sallallahu alayhi wa sallam waxfid janaahaka liman ittabaaka minal mu'miniin wàcceel sa mbagg ngir ñi la topp ñëpp waaye wàcceel sa mbagg su ko defee ñëpp tolloog yow kon borom bi nee na yonent bi wàcceel sa mbagg ñoom suufeel ci ñoom waaye jéem a la wàcce bu baax a baax boole ko nooy nepp yërëmal ñi ñàkk àndal ak ñi doole bul beru baleen bul tëju fàtte leen ñi néew doole ak ñi am na leen di ndax ñun loolu jëlee nañ ko ci yonent bi déedéet moom ñi am rek ngay bëgg a def àndandoo fàtte ñu ñàkk kon yàlla digal na loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di romb ay xale di leen julli assalaamu aleykum wa rahmatullah xale yi nag waaleykum salaam ya rasulallah ku nekk jëm tàllal ko loxo yonente bi di leen jox loxo ay xale yu am trois ans quatre ans cinq ans xam nga li gën a metti mooy ay xale yu ndaw yi foog nga leen ci kii lay wax lii kii wax lay kii ndaw la la kii ndaw yéeg la kii ndaw jaar sa kaw xoola yonent bi am patience di joxante xale yi ma suufe bu mel noonu yàlla nañu ko yàlla may waaye yonent bi suufe woon na ba léeg-léeg jéebiir yi dañuy ñëw jox ko loxo mu jox leen ñu xëcc ko ba fële taxawu xam foofu nag luy jiiteel ngeen ko xamul mooy jàmm bu jigéen jàmm bu jigéen bu dee góor su jigéen du ko mais jàmm bu jigéen dafa am xam ne ak tey góor la moo tax jaam jaam ku ñu jàppee jaam ñu ngi ci yonante bi loxo tee loxo yonante bi dafa soxla yonante bi jóg ànd ak moom ba ci leen sàkket yi jaam bi taxaw di ko soxlaam yonante bi ne déglu ko ba mu pare toll ko wala mu koy toll wallaahi mënuñu ko ñun ñaata ci ñun ñooy jàng seen bindaa toroxal leen ñaata ci ñun ñooy téye lekk bu baax bi jël xool ñeeg mëccaati di ko jox bindaa ñaata ci ñun ñooy jàng buur yi di leen wax tuuti mais yorante bi war nañoo royee ci noonu loolu yow soxna si. su la yàlla mën sëgalee jëkkër mën boppam wala nga mën sa bopp bu jël bindaa jàppal ni amoo jaam góor nga am bindaar yi dañoo pënt doole waaye ñëpp bindaar lañ de bindaar bu mag bi mooy Macky Sall mooy suñu bindaar ñun ñëpp ndax suñu alal lañ koy fay bindaar bi ci topp ci ñi gën a mag mooy ministre yi ña topp ñoom ñooy député yi kon soo bindee benn jigéen bu jóge ca àll ba ñëw di la toggal sa waañ di la raxasal di fobeereel waroo koo jànni ndax yow it fa nga liggéey yi bindaan nga fa te foofu nga liggéey bu sa directeur doon yuuxu di la di la humilier bu la doon humilier ndax di nga dina la dina neex dina fay deux cent cinquante mille nga ñëw di fay bindaan te quarante mille wala cinquante mille bu ko def jaar baadoolo fiir la moo tax jigéen ñi nañu sàmm lu mel waaye góor ñi nañuy veillé ci biddaa yi ci kër yi di ci gën di wax seeni jabar di ko xamal ne kii gënu kii dafa ñëw daan ci doole kon ragalal yàlla ci te bëri na boo toroxalee ni yàlla teggi loolu joxaat la am na benn anecdote bu am solo bu ci am benn jigéen bu doon liggéey ci nekkee ndaw si yàlla xam na ko jàng na ba am waaye comme dafa dëkk ci dëkku àll yi amul doole tëj mu ngi nekk ci kër gi fa liggéey mais ndaw kër gi da koy wax lu la ci jigéen bi loolu da koy wax ko toroxal ko toroxal di ko jànni ba benn bis ndaw si tëdd di nelaw rek patronam ñu ngi yeew rek tàcc ko sàcc nga sàcc nga sàcc nga mu ne ko lan laa sàcc mu ne ko war ci kër gi gisatul ñaata yoon la ko jigéen ñi def ay bidda sama or fu mu dugg yaa fa dugal ndaw si bu baat ne ko wallaahi jooy ne ko jiin nga ma loo xam ne defuma ko far jëkkëru ndaw si di agsi it. loolu ci biir jiw bi jëkkër jafe mu ne ko damay bàyyi mu ne ko lu tax mu ne diw dafa maa jiiñ ne damaa sàcc oram jëkkër di calme calme calme kër gi bàyyi. te mu waaw léegi jamono ba mu daal dina waxtaan bi jëkkër bi tourné di ñetti jabar jabar ji yuuxu ko ñetti ñetti coow teguñ ci semaine ci kër gi société dem en faillite société bi jëkk ko amoon dem en faillite ñu ko mu daanu nekk ci ay problème dem six mois ndaw si dem na ba amatul la mu amoon la taxoon muy yuuxu amatul ci kër kële ñibbi ak naqaram yàlla ubbi ko buntu di ko yàlla ubbi moom it mu nekk ci beneen société yàlla dogal mu am confiance patron patron bi jël ko jox ko moom mu nekk DRH bi jëkkër ji ci di wër liggéey di utaaleel jabaram liggéey ba toll foo xam ne bi mu ñëwee ci société boobu bëgg dugalal jabar ji ay kayitam mu àgg si ci ndaw si ndaw su xool xam tur bi xam ne jëkkër ji daal di muy bi mu recevoir jëkkër ji jëkkër ji xool ko dafa taxaw di ko xool pour nga ah, patron mais moo tax nga xam lii mën a nit jiw nga jël ko mu parce que mbaam bële wépp tey nga wépp mu yéen a yàq moo tax ma jël léegi kii mujj naa nekk ak patron moo tax àdduna kenn du ko mokkal du cere waaye dañ koy naalu de dañ koy naalu bu sa nga yëkkati sa kon royal yonente bi ci suufee yonente bi dafa wàcce ba daan la bu takkee boo koy xoos dox ba dàllam tàkk sobee da koy xoos yonent bi léeg-léeg tubuñam day dara mu di ko forog yonent bi da doon toog ak miskin yi ci waañu këram léeg-léeg ñu uppal mu jàppal nii ñuy dagg ndawal mu defal nii mu mu defal nii daa génn suuf buñ ci royee yonent bi sallallahu danañ xam ni yonent bi mooy royuwaay kon mbokk yi mu gudd mu gàtt ñu xam ni yonent bi mooy suñu royuwaay nanu ko roy ci jikko yu rafet yi yàlla yàlla defal ñu dégg defal ñu topp defal ñu compréhension bi seen diine salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu